ndax yàlla eh, eh, eh, def na vraiment ñu def ñaar fukki at fii ci dëkk bi am lu bari lu fi def jiite ay association nekkoon fii ci Grand Sud bi jóge Toulouse donc bu ñëwee Paris tey fii ñu ñuy wax euh, politique euh, ci wàllu diaspora bi di préparer ay élections législatives loolu lu am solo la ci ñun bon kàddu yi nag du mën a bari euh, comme kàddu defar na rek ñun ñëpp ñu ànd pour jox majorité président de la République loolu mooy tànk yi bu soobee yàlla. lii fi ñëw xel dal na. ndax même médiation bi. ak euh, li nga xam ne moom la temps lay dox Farba Ngom di ko dox fi honorable député ak ñeneen yëpp yàlla mi ngi ci def ndox mu sedd incha allah rabi jaakaar euh, naa ne mission bi daal euh, dina am dina dina sotti dañ ci am yaakaar bu baax a baax. merci beaucoup. on vient de dire. waaye élection député c' est le peuple sénégalais faut pas mélanger alors les sénégalais de l' extérieur def naa fi ñaar fukki at. su ma leen waxee lii xam naa ci dara ndax damaa jiitay association Grand Sud ba fu ne du ma ci xuus nag loolu du objectif bi su ma nee leen bennoo ak suñu réew mooy seen pays d'accueil su ngeen ko wanee ni da ngeen a doole seen askanu Sénégal seen pouvoir bu leen doo doo bu leen day def dara fii dara du ngeen am ay loxoy bennoo pour ñëw fallu leen kon fu laak fayda mënu wees lul sama pays d'accueil bi ma ne ma xamal ko ñu ko au nom du peuple sénégalais man damaa benn ak sama réew ba nu respecté la su boobaa mooy Sarr mën a wallu si su boobaa président Macky Sall su boobaa ñii di ñëw nii duñ fekk jàmm leen fiy fekk kon su ma nee nu bennoo damaa bëgg kii wallu day am loxo loxoom dafay gudd président Macky Sall dafa amee loxo moo tax mu rek mu rek la ci Italie son excellence euh, madame madame euh, euh, Aïssata Tall Sall dafa am loxo moo tax mu def loolu yéen ndax am ngeen loxo na ku nekk yëkkat ñaar loxo ma xool saal bi na ku nekk yëkkat di ngeen baal ma ñaari loxo yi ma xool gisuma de am naa mel am nañu loxo déedéet gisuma de nen ñaari loxo yi na ku nekk yëkkat ñaari loxo loolu day dalal xelu Farba de boo ko yëkkatul xelam du de kon nag ki yor moo mën a yeewu moo mën a yewi damaa bëgg ngeen bennoo yëkkati seen ñaari loxo comme yor ngeen ko ngeen dóor gars ba yeew leen fii am kon message bi mooy ñun ñu fi nekk fii bennoo bokk yaakaar na mu génn wax ni bennoo suñu réew ak suñu réew moo dox ci diaspora bi kon képp ku ci diaspora bi na bennoo ak sa réew wan ko sa pays d'accueil beneen bi des mooy ñun ñii nag. nanu comme yor nañu loxo nanu dóor gaay ba yeew leen jërë ngeen jëf. merci beaucoup un discours chargé de philosophie.